abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy teewlu jamono bi ñu toll nii di leen di wax ngeen di wéy di abonné te ngeen jëm vidéo bi bu baax a baax moom mi di Pa Assane nag daal ne jot dellusiwaat ci ay mbir yu yaatoo yaatu rek gannaaw ku nekk jot naa dégg rek yi nga xam ne jotoon naa daal di xew ba taxoon nag ñu daal di def ay arrestation yoo xam ne rek yu tegaloo woon la tabari tax nag moom mi mu yëkkati ay kàddoom nekkat kan mooy yanu responsabilité bi xamante ne bu kenn ku yëkkatee kàddoom nekkat état kenn mënta xeex ak moom tax nag ñu toog croiser les bras di ko seetaan muy jël ay doomi aadama yoo xam ne rek defuñu waxuñu lu tax ñu di leen di tëj ci kaso bi boobu ba tey ñu daal si remarqué ay nit yoo xam ne rek ñu ngi ci biir kaso bi si mel ne Hannibal Djim Cheikh Bara Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne rek ñu ngi ci biir kon nag jot na te tamit jaadu na ñu daal di taxaw ñun ñi nga xam ne rek ñooy sénégalais yi def nag suñu révélation yoo xam ne rek mën nañ ko defee ci beneen façon bu bokkut ak nag di manifester wala bokk di yàqu tax nag mu daal di yëkkati ay kàddoom ne nag daal di nay d'accord à cent pour cent euh, ci ne kat dañoo war a daal di jox liberté bu mat sëkk ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko loolee kat mën nañu kàddu la yoo xam ne rek yëkkati woon na ko yokk si nag ne bu fekkente ne état ñun ñëpp dañoo jàpp que ne kat euh, kenn mënta xeex ak moom nañ xam ne kat euh, bis mi ngi ci bis te timit euh, bi lay yoon dañoo daal di jàpp Hannibal ak Cheikh Bara Ndiaye beneen yoon nag bu ñu xam keneen kenn lañu koy def di ay kàddu yoo xam ne rek daal na koy woon a yëkkati moom mii nga xam ne rek mooy Pa Assane nekkat kon jot na ñu daal di taxaw taxawaat bu baax a baax pour mën a liggéey réew mi de Sénégal ci développement lañ ko mën a jaarale wante du feneen foo xam ne rek. mën nañu faa gis avancement fu bokkut ak réew mi di Sénégal lu dul ne rek ndaw ñi ñoo takku taxaw te nag révélation bi dafa daal di jot ñu daal di koy amal.